wala xam maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp ki seen tur ak seen sant di jaajëfal ñu fi teew ñëpp ndax bokk jikko ak bokk pas-pas ak bokk ngëm-ngëm moo fi dajale ku nekk tey li tax ma ñëw wuy si Thierno te yéen ñëpp xam ngeen nii dañu am benn manifestation léegi c'est dafa amoon lu am solo rek loo xam ne dama bëgg ku nekk xam ko Sénégal yàqu na kenn dootu ko waxal nit ñu bare bàyyi nañ seen jikko bàyyi nañ seen gëm-gëm bàyyi nañ seen pas-pas topp tappale ak bëgg lu yoon xeexoon nañu xare woon nañu pour dindi fi loolee lépp mais malheureusement gis ngeen résultat bi je pense que ni tappalekat yi sàcc yi truand yi yàqkatu réew mi te ñooñu di ay sénégalais bon comme ñun su ñu amee fulla yi dajaloo su ñu amee fullay di def lu ñuy def au vu et au su de tout di yàq réew mi sans vergogne ñeneen ñi nga xamee ne am nañu pas-pas am nañu ngëm-ngëm bëgg nañu seen réew bëgg nañu liggéeyal Sénégal amuñu beneen choix bu dul def daje loolu moo tax ma jàpp Thierno Alassane ndax dund naa ak moom pratiqué naa ak moom te xam naa ne lu ko waay mën a waxal doo remettre en cause crédibilité de remettre en cause patriotisme de remettre en cause bëgg dëggam loolu moo tax mosuma dañ di ko encourager mosuma dañ di ko wax góorgóorlu taxawal parce que lii moom mënul ñàkk kon bienvenue te yàlla taxawal la jàppale la li nga bëgg yëpp yaa xam yàlla la suñu borom defal lu koy sa te je suis vraiment fier très fier que tey jii nga mën a taxaw te sénégalais yi xam ni bu dëgg Sénégal bi ñu gëm mënul yàqu parce qu'il y aura toujours des gens des hommes et des femmes comme Thierno qui seront toujours prêts pour se battre toujours prêts pour défendre le pays toujours prêts